ah installation Idrissa man de bi ma ko déggee rafetlu naa ko li tax ma rafetlu ko ma rafetlu ko moom daa doon nit koo xamante nii réew mi waru ko dugal ci benn néeg walla ci benn dox moom moom daa war a doon nit boo xam ne daa war a génn jëriñ réew mi jëriñ réew mi nag du du du du rek day toog xaar nit ñi fal ko parce que loolu su boobaa xam-xamam. ñun mën nañ koo bañ a teel a jot mais comme nii mu demee nii wàcce boppam mu ànd ak Macky Sall pour ñu defar réew mi réew mi fi mu toll nii métaay bi moom loola laaj loola laaj kon loolu mu def ñun ñi ngi koy rafetlu ñi ngi ko ci tàllal loxo parce que ndawi réew mi ñoom ñoo soxla ku leen soutenir parce que réew mi dafa metti ñun xaaruñu ay opposant xaaruñu ay parti pouvoir. waaw man da njàngat bi ma ci dama cee kontaan lool te xam ni doomi réew mi la et puis tamit ku bëgg réew mi la. ci réew mi da koo jaral surtout ñun waa Thiès nag ñun dañu jàpp nañ ko war gën a jàppale gën ko fonk ci xam ni ki yor mbaam di la yóbbaale su yoree gileem dina la toog ci man Idy wax dëgg fa yàlla man moom dama ko bëgg man moom mooy sumu politicien mais jàpp naa dugg ci leen loo xam ne xamu ko wala ngoob ñu bëri na ñoo ngi naan naa nanga mais man gëmmaloo seefoo man jàpp naan réew moo ko ñor te ñi fi nekk tamit réew moo leen ñor ci politicien moom politique moom politique la rek kenn ku nekk si intérêt ngay xool mais intérêt bi tamit am na fu muy féete te man jàpp naan ne Idy bu amoon cent franc Thiès la ko indi kon ñun waa Thiès ñun dañ ci war a kontaan ànd ceeg man loolu laa ci gis. ah xanaa bég rek bég mbégte daal lañ ci gis mbégte daal lañ gis ci loolu parce que mag moom bu demee ba ba ba ba gis ne lii moom intérêt réew mi moo ko tax a jóg moom mu dugg ci. ah ñun Thiès waaye de ànd nañ ceeg moom parce que ñun intere réew mi rek la ñuy wër waaw ah, parce que bu doon bu doon ut intérêt boppam mën na toog ni noo décret bi ko bëgg a fal du ko fal day bàyyi ba élection présidentielle ñëw mu dem mais moom warul intérêt moom intere collectif lay wër daal moom intérêt réew mi la bëgg moo tax mu dugg ci te ñun képp kuy wër intérêt réew mi rek ànd nañ ceeg yow sàkkantumal ak nag ki nga xam ne mooy Idriss Seck nga xam ne mooy xoolu Thiès waay mooy suñu xol ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñun donc fierté lañ ci def te ànd nañ ci moom waaw ah, mu góorgóorlu rek te liggéey bañ ceesuwaay xalab ko rek parce que nit ñi wax ji bari na ku nekk a ngi naan Idi intérim lay dox mais ñun ceesuwaay bu fekkee xam nañ ne kuy Idrissa Seck ba tax cees kenn mënu ko fee gañe li mu ji ceesuwaay la li mu ji la bu ko neexoon buñ ko joxee xaalis mu dem dugal ko fu ko neex mais xaalis bépp buñ ko jox da ko dugal ci biir ceesuwaay defar cees ba mu new booy loolu tax ki Sall wóolu ko tamit woowaat ko ci wetam waaw loolu daal laa ci jot a nit moom léeg-léeg euh, dina wax loo xamante ni xañ na bi mu koy wax defu ci attention mu mu mu waxee ko ci ci température doomu aadama léeg-léeg erreur communication day am foofu parce que nit bari na loo xamante ni tey dina xëy di ko romb te njariñam la. léegi nag souvent mooy indi comme communication yi demee noonu. awaa ah, loolu moom yàgg na ci politique seen Sénégal loolu moom yàgg na fi loolu moom amul lu wax moom yàgg na senegal <laughs> defoon na fi. wax waxeet. no du wax waxeet moom doo dégg li mu wax démb dani la moom dafa waxoon fas yéenee tuma xam nga fas yéene tuma mais ndogalu yàlla da koy nangu li yàlla moo ko teg du lu mu yéene mais liggéeyal askan bi looloo ko ci dugal mais du loo xamante ne moom moo ñëw rek ak propre grème. daal di ciy dugg noonu du yéeneem quoi du lu mu yéene mais comme yàlla moo ko jox loolu mu jàpp ci rek liggéeyal askan bi loolu yëpp ci liggéey askan bi la